فاطمة بنت الخديم warna la foo tollu di lu neex sëriñ bu mag bi am nga ci dara dara war na la sant yàlla lool war na la tuubal ko doxoon li mu la may te xam ni doon ku ca war di def dara. tey alxames yamu ak bis bi ñuy màggal guddik laylatul xadar ci réewum Sénégal rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba ku tudd nag laylatul xadar sa xel dem ci soxna Maymunatu Mbàkke bintu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ak soxna Xari Sylla ñu gënoon koo xam ci soxna Xari Daaru moom soxna May mi ngi gëna a àdduna ci njaareem ci atum 1925 at ak ay weer rek la fi defandook waajuram wa loole sax moo tax miinu ko. moom soxna may mootu Mbàkke ginnaaw ba fi waajuram bu baax wa jógee magam ju baax ja Cheikh Mouhamadulil Moustapha Mbàkke alkarim moo ko yar jàngal ko alxuraan ba mu wattu ko ak xam-xam taxaw ci moom it taxawaayu waajur ak doom moo ko yóbbu itam daarul moxti jébbal ko rakkam ju baax ja Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Cerno Ibrahima Fatim Mbàkke mu dëkkoo ko moom soxna may mootu Mbàkke am na nag ak Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke ñetti bant di soxna Bali Mbàkke soxna maam Faati Mbàkke ak Cheikh Mahamadul Mahfouz Mbàkke mi nga xam ni moo fi nekk ab xalifaam yàlla na fi yàgg lool ci ànd weer moom soxna may mootu Mbàkke bintu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ci nekk gi nga xam ni moom la nekkoon Daarul Muxti Serigne Mahamadul Fadal Mbàkke newoon na ko nekk gi nga xam ni moom nga nekk Daarul Muxti mbooleem njabootug Serigne Touba gi bég nañu ci gërëm nañu la it Serigne Touba itam bég na ci moom soxna may mootu Mbàkke bintu Serigne Touba ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nag bi mu nekkee Daarul Muxti ba ci atum 1950 ci la jot ndigal ci magam ju baax ja Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke mi fi nekkoon ñaareelu xalifab Serigne Touba ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci màggal guddik laylatul qadar mu tàmbali koo màggal ba ni mi subawoo ak njabootam di ko màggal ba jamono ji moom soxna may mootu Mbàkke nag nekkoon ku ragal yàlla lool bëggoon itam Sëriñ Tuubaa lool waaye itam nekkoon ku tabe lool ci jaam ñi bu daa joxe daawul xam ku am ak ku ñàkk moom soxna may tu Mbàkke birtu Xaadimu Rasuul moo ngi wàcc ab liggéey alxames ñeenti fan ci weeru février ci atum 1999 moom soxna may ginnaaw ba mu fi bawoo Sëriñ Saaliwu Mbàkke moo jox ndigal rakkam ja Sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbàkke mu taxawu ko ñu denc ko ci armeeli Tuubaa yi yàlla na nu ko yàlla fayal te tas na ci barkeem te dolli jépp sutura te may nu ay leer yu rëy te yokku nu njaboot musal nu noog sunu njaboot ba bun gis ci dara